bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balwaq te leen ko baal tey ñaan sunu borom ba ñu jéggal euh, kàddu yi ñuy sànni mi ngi aju rek ci solos xam-xam ak yitte ji nga xam ne moom la ko sëriñ bi jox ci ak yasalam akub liggéeyam xam-xam xam nañ ne moonte ñàkk ci dara lépp loo xam ne lu ñuy luy dox la ci àdduna ci xam-xam lay tege dunduk àdduna mënta yéwén te xam-xam amul dunduk àlaaxira it mënta yéwén te xam-xam amul ni ko sëriñ bi waxee ne lépp loo xam ne nit def na ko te tegu ci ko ci xam loola du mën a baax isil amal in lam yakun bi almi shaabahu xalal loolu mooy sunnatullahi loolu moo tax lislaam bi mu ñëwee xam-xam la jëkk a jox yitte aay bi njëkk wàcc ci ci alquranul karim dafay digal yonent bi sallallahu alayhi wa muy jàng yonent bi nekkoon kon ku daa jàngal nit ñi alquran ji ñuy wàcce ci moom di leen leeralal la alquran ëmb ci ay maana euh, te loolu mooy xam-xam euh, bu ko defee nag ñu xamee nag la ñuy doog a fas yu wér ci la ñu mën a jëfee jëf yu baax ci xam-xam it la ñuy sukkandiku ba mën a xamee jikko yu rafet yu baax kon jikko yu yu baax ak yu safaan ba bañ mën cee yar nit kon xam-xam daal moo war a jiitu ci lépp lu mën a doon moo tax taxoon lislaam jox ko itte ju mag a mag a mag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënk na ab wooteem nee na yàlla da ko yónni mu nekk jàngalekat inna maa bu'istu mu'alliman yàq tam ne dañ ko yónni mu nekk yarkat inna maa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq Euh, moo tax lislaam jox yitte xam-xam ba ci xam-xam boobu ci la xeetu lislaam yëkkatikoo ba kawe mboolem xeet yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon te la ko jiitu ñu nekkoon ñoo xam ne ñu tekkiwutoon lu am solo lañ ñu ñu réer lañ woon waaye bi bi lislaam ñëwee indaale xam-xam rek indaale ab yar ak jikko ju rafet ak maandu ci la xeet bu yëkkati ko sëriñ biit bi mu ñëwee nag di yeesal diine ji am ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yeesal diine ak woo nit ñi ngir ñu ànd ak moom mu uh, xettali leen ndigal li ñaari yëf la wax ne moom lañ ko jox moom la jot ndigal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bi moom ab ab ab ab nettali la bu ñu jëlee ci ñu wér Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ne dégg na ci ku ko doy mu ne sëriñ bi nee na yonent feeñu wax moom ci jàkkaarloo ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat waa amil kulla shaxsin bi maa yaliqu bi yaral sa taalibe yi ci itte ju kawe te bul yem ci jàngal leen rek xam nit yàlla xamal na li ci xoli nit ñi ak seeni melokaan kenn ku nekk kon na ko yar ci anam ga dëppoog melokaanam ak bind ba ko yàlla bind loolu kon bu dee beneen bi nag moom da ko waxal boppam ya digal ñi ko digal mu jàngal mu ci mu jàngal taalibe loolu moom lu bind la wa min ajaa'ib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu bil awliya ila alqiyamati wa kullun waliya sunnatahu wa saanaha an bidaci tabshiruhu xadimahu bi fasdaci amarahu salla alayhi llahu bil ali wa saxbi man walahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbalu minhu nusa min ahli zaman mu ne bokk na ci kiimaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, feeñu gi mu feeñu liggéeykatam bi di Cheikh Ahmadou Bamba wax ak moom ne ko yëkkatil woote bi woote bi la yàlla digal nga woote ko wax ko ca kaw ñëpp dégg nga woo ñëpp ñu ñëw topp la nga jëmaleen ci yàlla nee digal na ko moom bi sallallahu alayhi wasallam na ko mu jàngal taalibe yi ak bépp jullit bu nangoo la bu nangu mu laabire la loolu moo tax jàngale ak yar mooy ñaari keno yi nga xam ne ci bi sukkandiku ngir yeesal diine ji ngir jàngale lislaam waaye nag jëm jàngale moom xam-xam moom dafa nekkoon loo xam ne ka jekk da ko yittewoo ba muy door a jóg def na ci yitteem ju mat sek ci sàkku ko ba géeju ci mboolem xam xam-xami diine yi ak ci alquran ak sunna mu def ci farlu gu mat sëkk ba yegg fu kawe ci xam-xam wëlbatiku it di jàngale nekk ci wetu waajuram di ko jàppale ci njàngale ma boole kook di taalif taalifaat téere xam-xam yi waroon a jàng yi daan jàng tam amoon ay jafe-jafe mu di ko taalifaat di ko gën a leeral di ko way di ko tënk ba bi nga xamee ne jot na ndigal nag ci yeesal diine ji moom ñu ne ko kon njàngale moom mu nga xam yaa ngi ci woon bu ci yem nañ ci boole di yar nit ñi ci itte ju kawe mu daal di boole jàngale ak yar ba muy tàmbali njàng bi booba ñam ñi njëkk a jaayante ak moom fekkoon na ñoom jàngoon nañu ba woon nu lef mu ànd ñoom kon ci tarbiya boobu ba mu ko defee nag ab diir ba mbooloo mi bari ñu toll ci jàng bari ca ci la wéy moom di jàngale moom ci boppam waaye sampit ay jàngalekat samp sëriñ daam abdourahman loo mu mu jiite njàngalem alquran mi digal maam Thierno Ibrahim ak Cheikh El Hadj Mbacke Bousso ñoom ñu ñu ñu nekk njàngalem xam-xam mi di ko ca jàppale moom mu boole di jàngale ak di yare am na sax jëmmi jamono mu demoon ba mel ni ku xaw a xat ba mel ni njàngale mi mi ngi koy gën a bàyyee ñi nga xam ne ñoo ñoo ca ñoo ca féete euh, waaye mu mel ni euh, ñu jàjj ko ca loola maanaam xelam dellu siwaat bu baax mu xam ne kat ak lu mën di dem rek njàngale mi moom war ko war na ci gën a farlu moom lay wax naan euh, fa juttani yowma bi xayri minani wa quttani ila iqtifaa sunani min baadi ma kaadam tidaahu nnaasi yudxiluni fi sharikal xannaasi wa kittu lil azhadu fi taalifi wal iqraa'i wa fi taalumi fi taalimi wa bi hudal maalumi yàlla defal na ma xéewal gi gën ci xéewal yi te mooy wommat na ma tënk ma ci sunna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma neen demoon naa ba jay gi ma nit ñi jay Eh, ak tagg yi ñu may tagg demoon nañ ba mel ni ñu ma bëggoon a gëmloo loone ma weesu nga jàngale eh, ba loolu naroon maa dugal ci fiiru seytaane waaye yàlla delloosi na ma sama xel delloosiwaat na ma xam ne daal jàng ak jàngale eh, ak sax ci njub ak jëfe loolu moom kenn waru koo bàyyi ma gën a jaajuwaat ci wàllu jàngale noonu la def kon fu mas a nekk rek te di tey jokkook mbooloo mi ma nga ca boole di jàngale noonu la defee nekk tuubaa di jàngale jóge fa dem Mbàkke Baari di jàngale te boole ko sampoon ay jàngalekat ñu ànd ak moom biñ ko fi jëlee yóbbu ci géej gi ba mu dellusiwaat ba dem Mauritanie itam ba mu amee dal rek euh, dafa daal tàmbaliwaat di jàngalewaat daal di sosaat daaraam daaray xam-xamam ca xomaak di jàngal taalib ya fa nekk boole kook jàngalekat ya mu sampoon ba mu ñëwee jolof ceyeen jolof it mu wéy ca loola boole ko samp ay jàngalekat sëñ Mouhamadou la sëñ Mouhamadou Lamine Gaye ñaar sëñ Mouhamadou Lamine Gaye yi sëñ Baara Xarifal ak sëñ Baara Faati Mbóoj ak sëñ Modou Gaye jamooy ñooñu bokkoon nañ ci jàngalekat yi nga xam ne euh, doon nañ ko jàppale ci ci ci ci ceyeen boo ni mu ñëwee njaaram nag la mi bari mu xaw a xat ba teewul mu soppi mu jàngale di jàngale ci ay tomb ki rëdd kon moom jàngale daal dafa nekkoon lu lu lu dëgër ponk bu dëgër bu dafa nekk ponk bu dëgër kon ci ci ci ab liggéeyam moo tax Cheikh El Hadj Mbacke Bousso nee na bind ci bataaxel boo xam ne eh, da ko doon tontu kenn ci administrateur français yi eh, ne wax ca ne wax ca biir wax ja ne sëriñ bi bi mu fi bàyyi ko moom Cheikhul Xaaj Mbàkke Buso ñetti naal la xam yu fi sëriñ bi bàyyi yu sotteegu toon benn bi mooy bëgg gum bëggoon a aji màkka ba waajaloon ko far ci am gàllankoor ak jumaa jum bëgg a tabax ci Tuubaa ak jàngukaay bu mag a mag a mag boo xam ne mboolem waa sow jant dañ fay dikk di jàng si xam-xam ci na mu gën a yaatoo na mu gën a kawee loolu moom mooy li ñu tudde rek université mu mu naaroon ko daal di waaye nag fekk na boobu naaru jumaa ji mooy jiitu bu noppee nag ñu teg ci daara ji waajtaay woowu ñu ko doon waajal itam ba jot jot naa jot naa wutoon ay téere jënd lu na ay téere yable woon na Égypte ñu jënd fa téere yu baree baree bari indi ko ngir bu jàngukaay boobu taxawee ñu di ko fa jàngale doon na tàmbalee defarlu ab barab ci Touba boo xam ne dañ ci téere yooyu taxawoon jóg maanaam bibliothèque nga xam ne bu jumaa ji sotteel ñu daal songu université bi loolu kon aw naar la fi sëñ bàyyi woon te it bind ci xasidaam yi ñaan ko yàlla ba wax ko waxin woo xam ne sax day niru ne ñaan ko sotti la ba noppi goo xam ne des na ci teg bët bil Mustafa lii banal qudduusu madrasatan biha yazul yazul aza wal jahlu wal kabadu kon loolu kon moom la Cheikh Abdul Ahad xamoon ba bi mu ñëwee jiite yoon wi fekk naar wu njëkk bi egg mu jumaa ji mu daal songu université bi daal di koy naal tàmbali ko woo ci taalibe yëpp gannaaw ba mu jiitalee bibliothèque bi sëriñ bi doon waajal ca ci te jotu ko woon a sottal mu daal cay dox ay jéego ba yem ca fam ca yam sunu borom defal tawfiq Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi mu dekkalaat naal woowee yàlla defkal ko ci tawfiq ci diir bu gàtt fa tabarakallah ahsanul xaaliqin taalibe yëpp ak jëwriñu yoon wi rakkam yu baax yi ñoo ñëpp àndandoo ak taalibe yëpp rek def ci pas-pas def ci farlu ba liggéey ko ci diir bu gàtt ba njaal benn gi ba ba mën tàmbali nga xam ne fi mu nekk nii eh, daara alxuraan yi ak majlis beeg kulliya bi kulliya diraasaat kulliyatu dirasat islamia wal yooyu yëpp mu sotti na ba fi moom ñu ngi koy waaj ubbi loolu kon day wane rek ne yoon wi moom xam-xam lu ko yitteel la lu ko ñor la loo xam ne moog yar ñoom ñaar ñooy tànk yi nga xam ci la yoon wi dox kon boog taalibe yëpp lii ab soññ la ñoom di joxañ di xam le ne rek euh, kon ñun ñëpp war nañu suñu yitte ci gën a war gën a fonkaat xam-xam xam ngeen ni Cheikh Mouhamadou Mourtada radiyallahu anhu moom it taxaw bay na ci waar wu yaatu yaatu tabax fi ay jàngukaay ci mboolem réew mi ba génne ko bitim réew doomam ju baax ji Serigne Mamor ñëw moom it naar def fi université ba ñi ngi jàng fi mu nekk nii mu yaato ko ba mu ay bànqaas Serigne bi ñëw eggale naal wee moom it kon maanaam mën nañu jàpp ne daal suñu kilifa yi ñoom ñu ngi dox ci njub gi nga xam ne moom la Serigne bi indi woon. te mooy jàngal nit ñi ak yar leen ak defar seeni jikko ak xiir leen ci jaamu yàlla ak liggéey ak liggéey yàlla ah, kon ñu ngi ndokkeel bu baax ak Cheikh Mouhamadul Mountakha di ndokkeel kilifa yëpp di ndokkeel lislaam di ñaan yàlla yitte ji sëriñ bi am ci xam-xam te mu yitte ju fi nekkoon naka jekk mu yëkkati mu yeesalaat ko fet ci laxasaayam ñun yëpp ñu ànd ci yitte jooju fas yéene fonk xam-xam fonk gëstu fonk jàng waaye njaboot yépp ñu xel leen ci loolu ñun taal bi ñu àndoo ci loolu ndax day mel ni yoon wi fi mu nekk nii loolu rek mooy moo ko dese ndax yoon woo xam ne mbooloo moo xam ne am nañ pas-pas bu dëgër ba lu ñu leen def loo mën nañ koo def seen bakkan sax mën nañ koo joxe ak seen alal ak seen lépp nekk benn bennoo lépp lu ñu soxla it am nañ ci seen biir ñu ko man euh, di nekk ay jëfkat di réaliser ay seen i projet yoon woowu daanaka xam-xam rek moo ko dese bu xam-xam bi dabee dabee pas-pas bi rek tolloog yitte ji yitte jëf ji rek su boobaa mën nañu àgg foo xam fu kawe kawe la kon ñu ngi bëgg a guddal ngi tànk fi kàddu gi di ndokel sëriñ bi di ko ñaanal yàlla bàyyi ko suñ kanam mu mu yàgg fi lool te wér ànd ak mboolem ay rakam ak mboolem kilifay lislaam yëpp ak nun taalibe yëpp ak juddi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu